am mbokk yeeg xarit yi ñuy teewlu à travers Sunugal 24 salaamaaleykum am mbégte rek saa di ànd ak yéen ci li gën fees ci ponk xibaar yi xibaaru bés bi dañu koy dooree ak langue politique coowal troisième mandat bi nga xam ne jamono juñ toll nii nag mooy lëmbëgeewu politique ancien ministre des sénégalais de l'extérieur bi nga xam ne moo nekkoon ca parti PDS di Aminata Lo daal dina cay sànni ay kàddu moom nag la muy xamal njiitum réew bu Sénégal ci lu jëm ci wàllum troisième mandat mooy rek bu mu déglu li nga xam ne mooy entourage am waaye rek na déglu peuple sénégalais tey ndax rek ñi nga xam ne ñoo ko wër seenu bëgg-bëgg rek la ñuy xool waaye du benn yoon li nga xam ne arrangé na peuple sénégalais bi ca conférence de presse ba mu doon amal niki démb moom Ousmane Sonko di njiital Pastef daal dinay jàkkaarloog ak askanu Sénégal la mu doon xam le rek di li ñëpp xamoon mooy rek moom mii nag di njiital Pastef daal nay nekk dana daal di nekk candidat ci élection présidentielle yu 2024 mu ngay wéy di xam le ni rek képp koo xam ne bokk nga ca parti bi di Pastef te bëgg doon ab candidat am nga liberté ak droit wu rek bokk ca yooyu lay élection dana def rek ay tournée nationale ngir ngir saafonte ak askanub Sénégal xam seenub jafe-jafe ngir jéem koo saafara bis bu toogee ci mim réew ca Gengi Néew nag la fa di lii di melax bi rey ci taw démb bi bu ñu sukkandikoo ci nijaayam bi di Adama Sarr jéye ji ma nga am boori 18 heures jarbaatam bi nag di Moussa Sarr ma nga doon seetaan am match de football foofu lay ca Mbulem di ab village bu nekk ca Gengi Néew noonee rek la taw bi daal di commencé ca lii papam moo doonoon chef de village bu Mbulem di ab village bu nga xam ne moo ngi nekk foofu lay ca Guinguinéo hôpital Le Dantec gannaaw tëj gi nga xam ne rek tëj nañ ko bi lay hôpital ba génnee ay malade kenn ca malade yooyu lay nag daal dinay ñàkk bakkanam Mané Ngom di responsable syndical bu hôpital Le ma ngay xam ne ni rek malaat bi génn àdduna dafa waroon def opération ca bloc de l'urologie waaye bi mu egsee ca boobu lay bloc nag fekku fekk kenn moom responsable syndical bi nag ma ngay xam ne rek du benn rumeur comme ni ko ñenn ñi di waxee waaye waaye lu am la ca hôpital boobu ndax rek ba loolee amee collectif pour les intérêts des travailleurs bu hôpital boobu daal nay woo benn huissier ngir rek mu saytu loolee huissier ba nag la muy xamle rek mooy ca ba ñuy transféré boobu lay malade ca la ñàkk bakkanam Touba gannaaw ba nga xamee ni rek màggal gi daal di nay jub si yenn ca jumtukaay yi nga xam ne rek dinañ ko soxla ngir berndeel seeni gan mënuñu ko laal benn yoon ci jamono ji nga xam ne rek tollu nañ fa nii ndax rek ay njëg yu cher bu ñu sukkandikoo ca RFM ci xibaaru subaam gi ma ngay xamle entrée bu 25 kilos bi nga xam ne rek ma nga doon jar 7000 francs CFA daal dinañ koy yokk ba 50000 mu leen di dikkee rek benn kilo soble 1500 wala rek waral nag ministre bi nga xam ne moo ŋànk wàllum jënd ak njaay fii lay ci Sénégal dina amal ab conférence de presse ngir rek indi ci ay leeral Baye Fall bu séri wiiri wiiri jamono yi ñu weesu nag mu amoon ci ab feebar ba rek ñàkk ci ay bëtam gannaaw ba ñu ko yóbboo ca yi ngir rek mu amul fa ab faj moom Baye Fall nag génn na ci média yi amal beneen jàkkaarloo xam ne bañ ko yóbboo ca Tunisie ngir daal di koy faj faj nañ ko waaye fajam googu amul benn suivi ndax Cheikhou ja mi nga xam ne moo ko booleek kii di Arona ja ngir mu yóbbu ko Tunisie daal di koy faj moom ba mu ñibbisee la ko daal di gëj a dégg ma ngay xam le ni am na papier yuñ ko fa joxoon ngir mu dem France ndax rek la ko waa Tunisie xamal mooy bëtam yi mën nañ ko traité waaye du benn yoon wéree fii nga xam ne mooy Afrique papier yooyu nag moom Baye Fall ba mu ci jotee nee na daal dina koy teg ci loxol Cheikhou Dia ngir rek ñu yóbbu ko France moom nag la muy ñaawlu rek mooy Cheikhou Dia ba Baye ba mu ñibbisee moom Baye Fall ba tey bu koy woo du ko wuyu benn yoon moom bay Fall nag la muy ñaawlu rek mooy toppatoo gi nga xam ne ñàkk nañ koo toppatoo ndax ba tey moom mii mënul liggéey dawalatul ay otoom dawalatul ay motoom te ci li nga xam ne mooy liggéeyam bi ci la yaakaar ngir yor ci ay njabootam te bu sañoon day dellu ci ay activité am people la ñuy jeexalee ak yéen Alima Ndione di madame Baye ñu gën koo ràññee ca écran wu Sen TV moom animatrice bi nag jamono juñ génnoon raaroon na loolu li ko waraloon nag muy ëmb gi nga xam ne rek ëmmoon na ko lañ ñuy xamal mooy moom Alima Ndione daal dinay am ab bu góor gannaaw rek ñaari sëyam yi moom Alima Ndione bi lay mooy taawam équipe bu Sunugal 24 nag ma ngay ñaanal doom ji rek mu dund te am ndey ak baay mbokk yeeg xarit yi lii rek moo fi jotoon a ruus comme ay xibaar di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah